Thank you. beaucoup bambilor beaucoup wayambam, d'aller les jàmm fit sen multi multiservice Waigi, gi di photocopie impression plastification wala nga bëgg jënd téléphone ay accessoires wala écran plat di nga tamite prêt-à-porter ay habillement yo. xamante solta foo ko sol ngay dégg wala nga bëgg jënd billet d'avion assurance véhicule Ou nga bëgg transfert d'argent tu auras Orange Money Wari Free Money ak Ria way gi multi service yow rek lay gi multi service nag euh, si li intervenir bari ndax déjà ñu ngi jaay matériel électronique ñu ngi jaay ay téléphone euh, ñu ngi jaay euh, accessoire téléphone am na papeterie yi. am nañ photocopieuse donc impression am na fi photocopieuse am na fi si kaw loolu aussi dañuy les récupération plus orange et vente dañuy les récupération Free et vente daf ñuy les récupérations plus Expresso et vente en plus euh, dañuy defaale abonnement abonnements abonnements agré agré agrément am nañ agrément bu escape en même temps dañuy euh, dañuy jaay bi billets d'avion surtout loolu mooy tey innovation bi xam ne def nañ ko commune bu Bambilor ndax bu ñu xoolee zone bi yëpp loolu am si woon ko doon dem ba Dakar mais nag ñun nag def nañ ay effort ba fexe au moins donc billet ku ko soxlaati nga jógee da Jandeer ba ba Thiès ba Jandeer am billet d'avion en plus dañuy euh, defal ay cachet et tout dañuy defal ay cachet en même temps en même temps boo leen di dugg boo leen xoolee si biti bi friperie bi ñu ngi ko sotti foofu fëgg jaay bi dañ ci dañ dañ yëngu si fëgg jaay aussi dañuy jaay fëgg jaay loolu lépp c'est juste rek pour créer loo xamante ni tey ki soxla bu ñëwee tey waaye gi mil service soxlaam dina fi dina fi mën a faj li mu yëpp bu ñëwee dina ko fekk naam it aussi ñu ngi déglu askan bi lépp loo xam ne rek xalaat nañ askan bi soxla na ko te ñun mën nañ ci def effort euh, incha allah bu soobee yàlla dinañ ko dinañ ko dinañ ko def adresse bi yomb na xam boo jógee commune bu Bambilor daf la féete à gauche bu fekkee da nga jógee si station Oryx bi bi daf la féete à droite si bunt bi ñu ngi ko peinture ay porte yu jaune am na benn table d'affichage bu ñu def si kaw boo xamante ni waaye humidité service moo si nekk numéro yi xamante ne moom la ñu mën a jotee muy 77 cent 218 71 65 wala 70 564 10 15 numéro yooyu daal képp koo xam ne rek soxla nañu boo ñu woowee si numéro yooyu dinañ ko mën a am bande bi incha allah mail yi xamante ne moom la ñuy yëpp mu ngi si mu ngi si fixe bi mu ngi si donc loolu daal la ñuy la ñuy la ñuy la tëjee kàddu yi di baal ñëpp ak tey baalu ak waaleykum ngi ci Bambilor jakarlo ak CADL wetu mairie bi ku leen bëgg a jot mën nga leen woo si numéro yi 77 218 71 65 70 564 10 15 mën nga leen jot tamit ci seen téléphone fixe 33 876 55 98 daw leen gaaw seeti multiservice mu fajal leen seeni soxla. transfert de l'argent waaye dañuy photocopie ku ne xam na ni écouteur ngi nii ak ufoor yi est bu baax bii lay jaay am nañ transfert de l'argent boo duggee war yi mu ngi ci biir waaye dañuy photocopie kat boo génnee ci biti farlu dagg na fëgg baax bi lay jaay xoolal nee leen yal na leen jig yal na mel ni ndoxum galas si yéen yal